Sidi Abdoul Ahad mu ñëw fii tey wuutu ko fi ànd ak ay rakam sëñ Mamadou ak sëñ Moukla ànd ak ay magi taalibe ñoom sëñ Laat Jaxate ak sëñ Jaxate ñoom ñu ànd ak suñu jarbaat ak suñu doom ànd ak monsieur le maire Cheikh Abdoul Ahad Ka góor lu nag yow dañ lay sant bu baax di la gërëm ndax da ngaa taxaw ñaari taxawaay sa trondo yaakaar naa mooy baabul muridina waaye nag tey fii yaa nekk baabul la aw baabil xukuma yaa dox suñu digg ak nguur dox suñu digg ak état ñëw fi nag suñu tur kilifa te bi ñëwee itam nga dégg nga wax wax ju kàddu wax ju am solo jëmale ko ci suñu kilifa muy Sëñ Abdou Lahad nee nga borom basiira la nekk banaa nekk mu rabbi giskat la wax nga dëgg missionnaire giskat la da daan gis lu kawe kawe ak lu sore sore ba tax na bi fi nekk nguur gi fi nekkoon da leen daan jàppale ci wàllu bu ne moom itam yëpp mu a wees lu sox lu jëm ci dëkk bi ak lu soxal taalibe yi waaye nag daan jàppale ki fi nekkoon ci xam-xam ak ci xelam mu rafet ba di ko ubbil buntu yoo xam ne bu ci jaaree day am ndam te lam bëgg da koy am su ma saa ñëw fii itam wala ci raison bi mooy yëkkati alalam di ko ganale kon kooko soxlawul lu jëm ci boppam kon amoon na basira bi ngay wax tabax ngay wax nit la daan tabax moom ngeen tabax yi kii yi ngeen di gis rek ay daara kaamil ay université waaye moom nit la daan tabax daan defar nit ba ci mbooloo mi ku ne mën naa wax ni sëñ Abdou Lahad ma defar daan yare itam yarkat mag la waaye mu dafa nekkoon mu rab bi waaye nekk mu raqet kàddoom da daan yar foo waay nekk rek boo déggee kàddu dana la andil ab yar ak i tegget waaye soo wéeteeg moom nag day nekk mu raqit boo xam ne dalay la yéegi ci sa borom ba sa bëgg-bëgg dana suufe ci ngay xool àdduna wala jëm ci moom waaye boobaa suñu boroom ngay gis sëriñ Tuubaa ngay gis kon nag su bisam ñëwee nga tudd Cheikh Ibra Fall dox suñu digg ak nguur gi suñu xel dal na ci bu baax a baax suñu jot rafet na ci yàgg nga koo teewe ndax nekkoon nga fi préfet ba tey nga nekk fii di góorgóor kon nag ñu ngi lay ñaan yàlla defal la ndam doolu yaa wax ne yëpp wax gaa yi wax nañ ko am na ci xam ne dafa war di wóor mooy sécurité fu mbooloo daje ñoo ko war a yor seenum paj fu ko ñoo ñoo ko war kon dégg ngeen loolu li ci dolli kuwaat rafet nañ jot da ko def ni ñu ko bëggee kon wax ji du gudd dañuy sant ñëpp gërëm ñëpp ñaanal ñëpp sa mbooloo mi nga àndal nag te topp ci sa gannaaw itam ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax dégg nañu seen wax ak engagement yi ñu jël lépp luñ ci mën daañu ko def te lépp luñ ci tëri itam daañ daañu fexe dañu ko fexe indi loolu nag mooy ndamal wut te ndamal wut mooy am kon jàpp nañ ne am nañ leen bëggoon kon nag yéen itam yàlla na ngeen am seen bëgg ci rajo sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye li nga xam ne moo ñu fi dajale rek naa ñu ngi ci jeexatal bi mooy waajal bés boobu bi nga xam ne nee nañ mi ngi am euh, après Korité ci ñaar fukki fan bi soit ñi ngi naan le 13 ou le 14 mai incha allah rabi ah, def nañ nag lépp loo xam ne mooy euh, war a gunge bés bi maanaam secteur yi nga xam ne moom lañ xalaat ne ñoom suñ si dugalee suñ loxo bés bi dina gën a yemb li si njëkk mooy ci wàllu wër gi yaram ak cet ñu àdduwoon lu tolloog fukki poste avancé ak ñaar pour waajal bés bi ñu mën koo def ñaari fan lu jiitu événement bi donc mooy deux jours avant l' événement euh, wàllu setal également muy hygiène ñu recensé lu tolloog téeméer ak juróom fukki barab yoo xam ne service d'hygiène war na ko mën a désinfecté waaye loolu aussi da ciy lëkkaloo ak euh, mairie bu Touba mosquée nga xam na dina ci dugal loxoom en terme de carburant la ca des dinañ ko yeggal ministère de la santé pour que produit yi tax mbir mi yem incha allah ñu mën ko mettre à la disposition des agents du service d'hygiène ci wàllu set également ak setal euh, mooy ñu nettoyer encore la ville cent de Touba euh, une semaine avant màggalut bi di ñëw waaye loolu également Sonaged dina ci indi ay jumtukaayam mais également jël ay nitam yi nga xam ne ñoo ciy liggéey waaye lëkkaloo ko également ak commune bu Touba mosquée bi nga xam ne engagé wu na ne dina ci dugal ay euh, jumtuwaayam mais également ay nitam pour ñu jàpp si waaye tamit foog naa ne ñuy ñaan rek mbokk taalibe yi foog naa ne ñoom ñu mën cee mën cee barkeelu ndax foog naa ne suñu bàyyee agent wu état beek agent wu mairie dëgg la liggéey bi dina yemb waaye suñu bëggee mu gën a taaru gën a gaaw it il faut que taalibe yi tamit laxasaa yu barkeelu ci te am nañ ci yaakaar ne Euh, dinañ ko def ndax ki waral ki bés bi euh, ci ñaareelu secteur ndax ku ne màggal aussi wax euh, ndox ak également assainissement loolu liñ ci àddu rek mooy naam forage yi ñi ngi dox waaye il faut benn dispositif boo xam day gunge day gunge forage yi mu toll ci fukki camion ak ñaar yoo xam ne citerne à eau la ak fukki bâche ak ak juróom loolu également dinañ saisir effort pour que mu indi dispositif boobu pour mën a gunge également ñi nga xam ne ñooy waajal waajal bés bu mag boobu. wàllu assainissement muy ñetti camion vidange yoo xam ne war nañ ñëw liggéey diiru ñeenti fan waaye foofu tamit ñi ciy rafet lu baax ndax le maire de la commune de Touba Mosquée nee na dina ci dugal loxoom ndax dina jël ñaari camion yi nga xam ne yor na ko aussi ñu ànd ak waa ONAS liggéey pendant 4 jours muy loo xam ne suñ ko defee. mun naa ne lim bi su ëppee san rotation ak appui bi nga xam ne commune indi na ko yaa am nañ ci yaakaar bu baax ne kon dina dina gën a dina gën a yem ci wàllu maintenant kaaraange loolu euh, doomu aadama yi fu ñuy dajee rek mun nañu état moo gàddu gàddu responsabilité bi ñu fexe ba nit ñi nekk ci jàmm mais également ñëw ci jàmm képp koo xam ne aussi safaan ba moo la fiy indi aussi ñu mun laa teg loxo ndax tamit euh, am na ci ñoo xam ne dañuy màggal ci mais ñàkkul am na ci ñoo xam ne leneen moo la ci indi mais loolu également ñi nga xam ne ñooy takk der yi seen liggéey lool la ndax mooy artu également ba lool du ci mën a am mooy teel a teg loxo ñi nga xam ne peut-être dinañ indi leneen lu dul màggal si donc loolu foo ne ñoom euh, seen liggéey la lim ñoom muy gendarmerie de police ku nekk di nga xam lii mooy jëmmal lim ban ñaata laa war a indi pour que mot loolu foo naa ne euh, ñoom dinañ ko def pour que kaaraange bi mot waaye ñu ciy bàyyi xel rek ne Euh, à part màggal gi 72 heures avant maanaam ñetti fan avant màggal gi am na une conférence des petits-fils ñu bàyyi ci xel tamit sécuriser également la conférence bi nga xam moom lay petits-fils yi di di organiser loolu également su dee secteur police lañ koy defee commissaire spécial bu Touba dina jël matuwaay yi pour mun ko sécuriser mais également les sapeurs pompiers ndax fu mbooloo di daje rek il faut que sapeur pompier ne fi pour mun a gérer yenn yoo xam ne euh, mun na cee mun na cee am. loolu foo naa ne donc euh, muy gendarmerie ak police dinañ jël matuwaay ci war ndax barrière également day dimbale day dimbale takk der yi ci ci sécurité bi loolu également ñoom dinañ ci àddunañ nañ ci sans barrière am nañ ci yaakaar ni dañ ko ci def pour mun leen euh, mun a gën a aar aar euh, askan wi leneen li rek muy wàllu wàllu courant muy énergie la ngeen ci àddu foo naa ne dégg nañ ko muy Senelec entretenir réseau bi mooy toppatoo réseau bi mais également maanaam yaatal yaatal réseau bi ci li mu ñetti téeméeri mètre muy xayma fukki poto ak également ñu fexe ba dëkk bi muy Touba mu bañ am coupé courant diiru ñeenti fan mooy li tubaab naan miir mise hors hors délestage mégalement ak téeméeri lanterne yoo xam ne war nañ ko mën a appuyer comité d'organisation waaye am na pàcc boo xam ne nag suñu ne éclairage public loolu mairie moo ko moo ko yore ñoom it foo naa ne engagé wu nañ nañ def seen entretien éclairage public lépp loo xam ne ampoule la ñu war ko changer aussi ñoom foog naa ne ils se sont engagés à à le faire la ci des rek muy wàllu wàllu contrôle te suñ nee contrôle commerce mi ngi ci biir élevage mi ngi ci biir loolu également ñoom seenu kër de métier mooy saytu su dee commerce d'abord ñu fexe ba marché bi yemb ndax ku ne màggal aussi wax bernde donc fexe ba li ñu li ñuy bernde mbokku taalibe yi mën a yem ci marché mais également ñu jaay ko ci njëg bi nga xam ne moom la yoon wax ne moom la war a jaay donc loolu foog naa ne ñoom it war nañu mën a contrôler prix yi nga xam moom la ñu ci marché yi nekk nekk Touba même yi nekk ci région région région wu Diourbel euh, leneen rek muy élevage moom lañ ko sas mooy mu saytu ñam yi nga xam ne dafay jóge ci ci mala mun a nekk ñam bu ñuy lewetal mun a nekk boo xam ne aussi lewetal nañ ko pare mu nekk ci marché bi loolu aussi moom dina ko dina ko dina ko saytu pour gën a aar aussi askan yi nga xam ne ñooy jëfandikoo ñoo jëfandikoo benn boobu li ci des rek muy wàllu communication mooy euh, fexe comme nu ko presse bi defee nii couvrir na CRD bi ñu fexe ba conférence beeg màggal bi la press muy RTS ak toute la presse privée ñëw fexe ba mën a couvrir euh, cet événement mais surtout muy euh, avec la Sonatel ñu indi ñaari lignes yoo xam ne benn benn ligne ADSL pour permettre ñu mën a lëkkaloo bi gën a gën a yem donc loolu également suñ ci paree ni ñu ko defee nii dañ ko tënk nag ci benn kayit ba kenn ku nekk li nga xam ne mooy secteur bi li la concerné dinañ la ko fàddali fet fàttali la ko leneen la également dinañ ko jébal kilifa yi nga xam ne aussi ñoo nekk au niveau central mais d'abord ñi nekk fii xëy na ku nekk di nga ko am waaye ñoom également dañoo lonku ci ministère dinañ def tamit kayit yëbal ko ministère yi nga xam ne ñoo féete kaw ñi nga xam ne ñoo nekk au de la région de Diourbel muy liggéey boo xam ne suñ ci génnee léegi incha allah dinañ ci jublu ñaareel également mooy ñu sas également préfet bu Mbacké mu ànd ko comité d'organisation bi pour su see ñu mën a def également évaluation bi su dee am na lu sooxee ñu mën koo teel a teel a teel a jubanti donc loolu foog naa ne euh, dinañ ci dimbale waaye suñu bàyyi ba mu sës rëkk rek day indi yenn jafe-jafe xaw mën a comment ça s'est passé dans le temps mais même su dee ab comité restreint lay doon ànd koog préfet Mbacké su préfet bu ndaam ak service yi fa nekk nañ ko def dimbale ñu au moins une semaine avant ñu xam lan moo ci yembagum ak fan ma xalaat ma ngay sooxe ñu mën a teel a aussi ak kilifa yi xool nu ñu koy jubantee loolu foog naa ne moom la ñaan préfet bu Mbacké mu coordonné ko ak comité d'organisation bi ak sous-préfet bu bu Ndaam euh, leneen rek mooy nag lii nga xam ne moom lañu ñu engagé wu service yi ku nekk jàpp si yéene bi mu ngi fi mais nañ ci gën a farlu borom bi nag mooy mooy mottali mais yéene bi moom ak Pastef bi incha allah bi mi ngi fi mais lépp loo xam ne mën nañ ko pour def ko nañ ko def pour mu gën a yem waaye nag objectif yi mooy lépp lu fi àddu ñu def ko Euh, dara borom bi moom mooy motale kon su amee rëq-rëq tamit ñi ngi siy xam ne du yéene bi mais ñi siy ñaan ñu xam ne ñu comprendre ko noonu mais taxawaay beeg matuwaay bi moom incha allah war nañ ko ci def pour que lépp mën a yem su ko defee ñu dem ci bés bi si jàmm